aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi ñaanal mboolem xalif généraux yi ci biir réew mi yàlla bàyyi leen fi nu yàgg fi lool te wér ñaanal njiitu réew mi ñaanal boroom kër gi président Youssou Ndour ñaanal kilifay réew mi ñu nekk biir réew mi bitim réew yàlla na ñëpp am jàmm mbokk yi démb ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ñu ngi waxtaanee ca njàmbaaru yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca laa wax démb ni jamono day toll foo xam ni kilifa gu mu mën a doon boo amul fit li nga bëgg a def doo ko def li nga war a wax doo ko wax ca laa wax ni la doomu aadama day boo nekkee ci jub nekk ci mbaax doxalal te nekk ci nga li nga war a nekk waaye Seydina Muhammad dafa xam kii wax ak moom te arab yi li leen jaaxaloon jommal leen mooy ñoom gisuñu sëriñu daara bu ko jàngal ñoom yëfari Makka ñi muy fëri makka gisuñu professeur bu ko jàngal waaye bu làkkee arab rek nu daanu moom alayhi salaatu wasalaam dafa amoon dégg moom yonent bi xam nga ñu am dégg xam dégg xam wax sayyiduna Muhammad leen ëpp dégg mais alquran ñëw jommal ko moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ni ki wax wax ji ku mu doon te mooy borom bi subhanahu wa taala waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci njàmbaaram moom alayhi salaatu wasalaam sama waxoon na aj aajiwu ko Seydil Haaji Maalik nee na jaru ko woon sax nu koy waxtaane waaye nañ nañ leen nettali benn rek muy maa kaana taxtaaju tabyinan sajaatuhu mu ni ahlal madinati saa'il layla fas'ihimi mu ni laajal guddig Madine nga ñu amee benn bruit boo am ca dëkk ba waa dëkk ba yëpp tiit dajaloo ba mat douze personnes fukk ak ñaar ñun lañ dem rek la bi douze yi génnee di ko réglé ji problème ba te la ñu dajeeg Seydina Muhammad di wàññeeku naan leen wàññeeku leen rek naa ko kon njàmbaar gaag fit wa moo dina jarul nu koy wax waaye Seydina Aliou nee na keroog bañ demee xare Xunayn ni ñëpp a tiit keroog ndax keroog yéefar yi seen bët yaa ngi xonk waaw te bul fàtte njàmbaaru yonent bi alayhi salatu wasalaam li ko yàlla wax ni ko ne ko yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kufaara wal munaafiqiina yàlla ne ko soo jugul jàmmaarloog ñoom ñëpp dem safara boobaa duna yàqu na ko ëpp sa morom duma doomu aadama yi lekk midd nit ñi duñu wax dëgg doomu yi nekk ci lu bon Sayyidina Muhammad ñëw yett ay yàlla di ko jaamu mu dikk ne benn buur a am mooy ki car asamaani juróom-ñaar mu too daanu benn buur a am mooy ki talal suufi juróom-ñaar mu too banku mooy kii jël ndox def ci biiru jigéen nekk fa ak ay ouvrier juróom-ñeenti weer doom judd mu ni fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqiina benn buur a am ku am moo la jox ku ñàkk moo la xañ ku tawat moo la ko teg ku am naqar moo la ko teg ko dee moo la rey moom borom bi subhanahu wa benn buur a am ku am nguur moo la ko jox ku ñàkk nguur moo la ko xañ moom yàlla njool màkk ni benn buur a am makkay jaamu ñetti téeméeri yàlla ak juróom-ñaar fukki yàlla ak ñaar mooy trois cent soixante douze yàlla mu ne woon ci Kaaba ga njool màkka ne dikk na benn yàlla am keroog xara xonay ni seen na Aliyu nee na keroog yéefare seen bët yaa ngi xonk yi bari nanu seen na Aliyu nee na nekk ay jàmbaari fëkk dëdd koo ci xool xam ne ki ko am fit la dee ko gën a lu mu doon nee na jullit ñëpp tiit Alioune nee na xam nga ku ku ne ci kanam ñu ne ko ah mu ngi rasulullah Seydina Alioune nee na ñun ñëpp ñu ngi ci ginnaawam nahnu na luusu bi rasulillahi sallallahu wa sallam allahu akbar suñu waa ji jàmbaar te boobu jamono mooy yonent bi moom la yàlla yónni ba tey waaye boobu boobu boobu jamono moo waxoon ni ana rasulay xaqan bal ana xaatimi nabiina wa sayyidil mursalina munoon na ni maay seen kilifa dem leen xeexi mooy professeur bi aw ma jot may jàngale mooy médecin bi boobu jamono mooy kilifa gi moom rasulullah yi mais xare day am njool màkk dugg ci biir géew bi xeex bocc na jaasi juróom-ñeenti yoon am ñu wax ni jur fukki yoon ak benn yoo xam ne Seydina Muhammad xeex na ci jëmmi boppam bi nafsihi qad gaza hasi bila kazibin fi tisi salla suyuufan jut na li la xam yi seex Seydil Hadji Malick gi nag moom dafa bàyyiwul dara détails yi bàyyiwul ci dara yal si naa luy nee na keroog ñëpp a tiit njool màkk na ci kanam nee na ñun ñëpp ñu ngi yëru ci ginnaawam nahnu naluuzu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam keroog la naan ana nabiyu la kazib ana bnu abdi mutalib ana nabiyu la kazib ana bnu abdi mutalib man la yàlla yónni te li may wax dëgg la maay doomu abdul mutalib abdoulaye ko jur Abdul Mutalib jur ko Hachim jur ko Abdou Manaf jur ko Xusay jur ko Kilab jur ko Murata jur ko Kaab jur ko Luway jur ko Ghalib jur ko Fihri jur ko Malik jur ko Nadar jur ko Kinaanata jur ko Xusay Mata jur ko Mudrikata jur ko Ilyas jur ko Mudar jur ko Mizar jur ko Maad jur ko Adnan jur ko anab nu Abdul Mutalib njàmbaar ci Seydina Muhammad la yam alaaj masaan doo ci caméra bi bu suba ak jàmm